ma ne Cheikh Diaw a ngoog Cheikh Diaw Diaw borom Diaw a ngoog borom Diaw koni waaw cay mbiras ne mbir roog ne mais saa ne nee naa leen xale la mais borom la yi da koo tëb ku raw mu tëb ko nee naa leen day jànkoonte ak raw cay waay ale sa ca jaxaw jaxaw saata le mat jaxaw saata cosaan Cheikh Diagne waaw waaw miras mbir na mat ndeysaan ku dëkk jaxaw mbir na mat nga ale wag na siire woo ko kecunga xama jaabal kawen mater waaw waaw kon Cheikh Diagne waaw waaw jëlama jaay bi mu ngay daagu cey Cheikh